salaamaaleykum mbokk internet yi wasaare laam ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ku si nekk sa sant boo leen gisee afis bi nag xam ne ñu ngi fi Dalifort kan wa tey Ouzin production moo ñu fi woo muy un duel des Thiat entre Thiat Limousine ak Thiat Dalifort tey ñu ñëw seet si waa Thiat Dalifort laaj mbokkam yi duñ pare bis bi tey dañuy dugg laaj leen ñoom ñëpp benn par benn. waaw aja xaale. caatu woo am nga yërmande caatu way naa la ah. am nga yërmande la ya woma woma bëgge yow caatu woma bëgge yow woma woma yow caatu woma we dama la dañu ko bëgg bëgg bëgg ye caatu yaa ñu jaarale alleluya alleluya alleluya alleluya alleluya alleluya joli corps corps il m'a donné caatu il m'a donné caatu caatu dalay linjaat dalay linjaat caatu dalay linjaat caatu dalay linjaat Seniko Giko Yoga Aye Tiao Ki mooy caatu ye Ki mooy caatu ye Ki mooy Ki mooy Ki mooy caatu ye Babe nuyu naa Aye be Sàmb la yaay kii mooy caatu est-ce que ni tey ñaari caat ñaari caat ñoo war daje ko du combat sa bi laa wala. nga teg loolu fan. sunu mbër nañ ko wóolu moom. ndaanaan la mais ke caat bee tamit ndaanaan la te ku ko xam ñu ko xam yëpp arène bi yëpp xam nañ ni ndaanaan la tey lañ dañoo war a xam kan mooy si caat bi est-ce que yéen pare ngeen pour wane seen bopp. yàlla def ñaari ndaanaan ñoo daje. ku nekk day wane sa bopp. mais ndaanaan yi bokkul. te ñaari kuy mu ñu bokk mbalka. bilaa walaay. ñaari kii su te te xam lépp dëgg ñu dee si géew bi. na ko moo ko gën a liggéey moo ko ëpp technique pexe pexe bëre ak bëre bokkul ñu suñu bëre dañ ko wóolu bilaa walaay ay doomu gétoo nañ doo xam noo ñeme lu métti ñeme lu dëgër bilaa walaay taalaay lu nga koy ñaan yàlla def jàmm yóbbu ñu si jàmm ñu dang si jàmm gars yi nangu jël si jàmm ñu ñëwaat si jàmm incha allah loolu la. incha allah waaw la fa demee wàccaay bi na xam. waaw noonu la fa demee kële yoon la rek dañ koy pousse jàll waaw kële xoolal nekkuñu nag moom sax xam nga rek instant nii xam nga rek làmb moo ñu boole sax moo tax mais kenn ñu nag xoolal nekku ñu nag moom ñu ko mën ñu ko ëpp doole du combat mais attends kenn daanaan la dafa prouvé ba egg si la mais daanaan daanaa wute cin bokkul cafin te nag tey na koy xam xale ndaw la ñu ngeem nan ko yóbbu esaat cin bokkul cafin mais yéen seen cafkaay cin ngeen xam ah ñun kee dañ ko yàgg si daan dañ ko yàgg si daan seetaan ngeen ko mais lu ko kan kële kële dunk ke du bagage du port la du bagage du port de bagage tey na koy xam pus jàll la nekkuñu nag moom sax ke day xaar ba gerte ñor ba yàlla di waaw tawaat nice ba booba tey na koy xam incha allah kon yéen seen gerte ñor na ñun suñu gerte suñu gerte bu ñoree du tey yàgg na limousine yow caatu dalay daa limousine yow caatu daa limousine yow caatu dalay daa limousine yow caatu dalay daal limousine yow caatu dalay daal incha allah moom la ko indil nag na pare fépp nag ñu fàttali nañ fépp instant yi fàttali nañ fépp. ba si kanam na ko waaw amul xalaat amul xalaat instant yi lekk rek lañ ko dul def lekk rek. lekk lépp lu mu laajte rek nga def lekk lañ ko dul def lekk rek lañ ko dul def. waaw est-ce que minimiser woo leen ko tamit. nga ne. est-ce que xeeboo leen ko. non xeeb fan waaye saa yu xoolal saa yu doy ñu xëy barki sëñ Bamba doy ñu xëy duma dóor ko daan ko billaay ñoo ko gën a pare fépp. nga teg loolu fan duma door ko daan ko. duma dóor ko daan ko bu ñëwee bëre ñu duma ko bu ñëwee ñu jàngal ko bëre lépp lañ koy jàng. kon moom lan lay wut si arène bi. waaye yow saa yu saa yu dañ jaar benn yoon bu ñuy jaar la nii rek benn pass. mafia nar a la gars yi àndal ragal de amul bi. xoolal joxe suñu bagaan rek dañuy joxe suñu bagaan kooku day ñu xëy doo ñu galax ndiku du bagage du port du dara du tuus. mais est-ce que xeeboo leen ko. da nga ko xeeb da nga ko xeeb dañu xam ne moom du dara du mbër kooku noonu waa kooku du comédien kooku fecc ko sabar la doo ko gis fecc ko du sabar la. mais mais lamb lamb dafa am folklore fecc bi si la bokk. kooku si Diop la mel ni soo boobu si Diop moom la moo si ne moo doon lëmbal bër la boobu noonu moo doon lëmbal. sama si boobu noonu la aji sala jéere boobu noonu boo doon boobu moo doon lëmbal si côté bi jaajëf jaajëf waaw wax dëgg fa yàlla ñoo leen di sant di leen gërëm sant yàlla di leen gërëm yéen moom amuñu seen fay waaw comme ni Thiat rek man moom kër gi moom maa gën a nekk xale waaye lu bëri man leen koy jox daal sant naa ne gërëm naa la xale yi Thiat su amee dañuy dang-dangi guddi dang-dangi bëccëg ñun nag ñoo ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam bu seddu guy si barke Seydina Muhammad ñu feetoo ko. waaw wàccaay baay dina xale yaay nii wàccaay moom moom du yomb xam nga man moom baay wàccaay moom du yomb moom sa bakka nga jëy tay la ko waaye du yomb daal sant nañu ñëpp waa koñ bi dëkkandoo ñëpp ñëw nañu waaw amuñu daal seen fay. Eh, mm-hmm. déggoo lu ma la wax xam nga instant arbitre soufflé moo mu wax fa bàyyi moom waaw fu wóor bugguñu niin bugguñu niin bugguñu defet dafa am doole non non kenn moom ko xamuñu ko sax arbitre na wàcce loo xam ñu dox si kawam lu la am jël waaw waaw non lu mu nekk ndaanaan ñun ñoo gën a nekk ndaanaan fopp waaw xale bu ndaw la waaw amul saral na jël bakkanam tay la ko foofu loolu lañ ko sant kee du xeex mukk du xeex mukk nan lay xeexee déggoolu ma la wax xeex bi ni ñun bu boowun ko nan fexe ba jàpp ko rek lu muy woote bu mu fexe arrière rek na taxaw ah. waaw ma daan ko ma duma ko jërëjëf waaw kii mooy yaayu caat kii mooy yaayu caat waaw kii mooy yaayam. waaw fay nañ leen. ah xanaa sant yàlla rek di julli ci yorante bi di sant sunu ñaari waajur di ko ñaanal rek yal na ko yàlla may ndam lu sedd buy def jàmm ak salaam defal ko ñëpp rek mboolem ku ci ànd rek yal na la yàlla defal jàmm defal ko mboolem julli defal ko kii muy dajale tam nag yal na ko yàlla defal jàmm ndax doom yëpp benn la noo jur ñëpp. waa loolu rek laa leen di ñaanal. xanaa di ñaan rek li ma wax rek benn wax boobu rek laay wax damay ñaan rek di ko ñaanal rek mu am ndam ba waa Dalifort ñoom itam duñ ci am gàcce ndax wax dëgg yàlla bu bëree ñëpp ay jóg xale yëpp ay jóg mag ñëpp ay jóg ñëpp koy yéene jàmm. yal na leen yàlla defal jàmm may kandam lu sedd guy loo àndal ak dara ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama tante sama moo nekk nii waaw ñoom ak yaayam ñoo bokk benn dëkk ñëw fii sama tante la waaw sama tante are bu baax la waaw loo xam si combat bi loo xam ci combat bi xanaa daan rek daal di ñibbisi jël ndam lépp la yomb na kay nga jëm rek egg jël ndam lépp xale bu yaru la xale bu baax la yaayam baax na baayam baax na ñu baax lañu yax bu rëy la jógee kon nag yaakaar naa ne ndam dana ñëw waaw yaakaar naa ndam dana ñëw ndaanaan la war a bëreel waaye ndaanaan waaw waaye ndaanaan li moo man kii moo man caat mi moo man lépp ndax ci yax bu rëy la jógee kon nag yaakaar naa ne dana ndam moom rek la ñuy ñaan maa ngi yaayam nag mooy yaayam mooy sama doomu yaay man maay doomu bàjjenam may ñaan ci yàlla rek yàlla na ko yàlla may ndam te daraja Muhammad li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal daraja Muhammad waaw mu sant tuudu kaddu rek tuudu kaddu rek ñu joxe ñeneen. salaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax Baye Ali sama doomu nijaay la sama doomu nijaay may jarbaatu paa bi dégg nga mu yëkkati may ma doom may sëy si kër gi sama nijaay nga sa njéegal yàlla yan na xippee yi sa àjjana ji na yor ma ba ma nee salaamaaleykum jóge dëkk ba yaay mi moom a gàttanu maa ngi firi waxtaan sama tànk xar mu gàttanu ba yan na ko yàlla may ndam kii nag dama koy bàyyi yàlla ndax yaayam si moom laa wuuf lu ma naqadi moom a kay fajal lu ma mel moom a koy fajal sama doom yi ma ma naqadi moom a koy fajal yan na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla jàppale yan na ko yàlla may ndam yàlla dund ba ñu yóbbu mu dund ba takka jabar andi si gi sa da dajee Cheikh man mi jaam maaka ñaanal tey day baax te day am ndam. Baboy numéro 2 Baboy kii mooy Baboy kii moom ñoo ngi ko ñaanal yàlla quoi lépp lu ñu def caat fu mu egg rek moom moo ko fa eggaloo wax dëgg fa yàlla caat fu mu eggaloo moo ko fa eggaloo ku baax la gaan bu très bien da lay teg si yoon dee teg si axe am na wax yoo xam ne moom bugg ko kii mooy Sakho numéro 2 ma jox la mu wax tuuti. salaamaaleykum wa rahmatullah ziar nañ di lay sant di lay gërëm di lay ñaan a gudd fan ak wër euh, te ngeen dem ba am seen teelay bopp waaw di lay ñaanal parce que lii yombul xale bu ndaw la nekk si dynamique victoire macha allah xale bu ñu déggal bu ñu jox cër mun bëre nangoo gunge maanaam boo gisee ma ne nangoo gunge maanaam jom ji bi daa bëri mun nga ko ëpp mais bi ngeen jàppantee di nga xam ne moom mooy kan caat nag jox nañ cër wax dëgg yàlla xale bu yaru la xale bu ma déggal la man nag maa yor lépp maa koy ngemb maa yóbbu maay frotter maay kii comme lu la ngoon wax ñu koy ñaanal nag bis bi nag mu nekk bis bu sedd guy si si si carrière am waaw waaw waajtaay bi daal mu ngi entraîné teg ko si yoon di contact def séance trois jours par semaine par jour trois jours di entraîné di teel a tëdd di kontak di teel a tëdd jafe gis nag wax dëgg yàlla nekk xale bu gëm boppam bu nangoo liggéey mun a bëri macha allah ñu koy ñaanal. waaw ñaari caat. waaw xam naa ko bu baax. waaw waaj nañ ko si lépp parce que booy boobu xam nañ ko xam nañ qualité bëre macha allah yàgg naa ko suivre man. ndaanaan la nag jox nañ ko cër bu moom mais ñun tamit ndaanaan la ñuy gungee di ñëw te bu neexee yàlla dara yàggul bu bi soufflé nga xam ne lépp dëgg la. non non man du ma xeeb mbër man chaque jour loolu laa ko wax nee naa ko ku la buñ la boole woon a xale bu ndaw bi sax bul ko xeeb parce que dafa pare nga pare ay mbokkam pare mu pare jox ko cër bu mu moom mais nag bu mu la diriger combat bi waaw yaay xale yaa am lu nga bëgg demal fekki ji ko. kon tey yéen yéenay waaw ñoo koy diriger. kii caatu caatu limousine. Ah. su bëree ñi daan ko bu xeexee ñi nokk ko daan ko. ah, ah du yomb de. ñun dañoo complet lépp waaw macha parce que booy bi day dem Grand di bëre barki alxuraanu kër ay mama Lamine yëpp da leen di daan billaahi wallaahi waaw yal na yàlla defal jàmm maam la xaar ma jox la ko wax tuuti léegi ba ay ale ku kii la ku baax la yal na ko yàlla may ndam yal na ko yàlla may ndam man ba fi ba fi ñëwee ba mu koy waa àttee ba léegi ba mu juddoo ba léegi kenn mësul ka àttee kenn mësu kii man nag mënu maa wax man nag mënu maa wax waaw yal na ko yàlla may ndam ci kàttanu yàlla moom la fi yàlla bàyyi mooy sunu papa mooy sunu kilifa mooy ñëpp papay caat bu mu génn àdduna kii moo nu yor mooy sunu lépp ñoom ak caat ay doom bàyyi nañu waaw moo ngi tudd si kii bi rek. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu seen seen sant. di ñaan jàmm rek yal na nu yàlla defal jàmm baale moom mënuñu ko waxal dara lu baax rek xale bu yaru la xale bu am teggin la amul benn problème kon nag ñoo ngi ñaan lii mu nekk yàlla nak ci yàlla may ndam ci barke bi man nag maay magam loolu rek la am ci loolu ci doon wax wasalaam. maa ko maa ko jàngal xale bu am joom la xale bu baax. ñoom ak caat mooy yee caat yenn heures yi ñuy dem entraînement kii mooy Ousmane Gueye kii lu ma yor si caat rek bind ko téere tax. waaw ah, noonu la demee ñuy wax auzu billaahi mina seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di sant yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax xam nga di jëli Seydina Mohamed waaw caat moom li ma xam si moom bëri na quoi waaw booy bu yaru la xam la ndaanaan la di ko ñaanal yàlla nag bés bii ñu jëm yàlla defal ko si xam nga ndam lu sedd guy. mi nga xamante ni jig na ko ba mu doon roi des arènes ñu doon koy ñaanal quoi. yow mi waaj waaj ko waaj bu baax ak sant yàlla rek xam nga ndax ñun lépp lu ñuy dugg rek xam nga dañ si sant suñu borom quoi suñu borom mooy dogal di ko ñaanal nag xam nga ndam lu seddu guy mooy waaw gaa yi nañ daal moo loolu. yóbbu nga ko mhm. pare si moom lu mu indi quoi. temps après départ rek mu si moom li mu indi ñun wóolu nañ suñu mbër quoi wax dëgg yàlla. waaw ah, wóolu nañ ko trop waaw. non kee du dara ke xam nañ ko. Ah. xam nañ ko bu baax a baax a baax. waaw ah, combat revanche la quoi revanche la. waaw dafa revanche la quoi revanche la wa waaw waaw yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu ndam lu sedd ko incha allah waaw dafa daan suñ doom baay ko a foog ñu daan ko nag moo loolu. waa maire Fadio. yal ko yàlla dafa jàmm xéw a sutura kii moo sunu bàjjan si kër gi waaw maire bu baax la moom mu sant kàddu tuuti rek. waaw asalaamaaleykum ah Yandé li nga wax de moom rafet la waaye yow kenn gënu la yow sama doom nga te doom ju baax la bisu Baye Alé bi nag li ma kay ñaanal maa ngi ñaan yàlla na yokk ba yëg ko ni Balla Gaye siiwee ci làmb yàlla na dund ba siiwee ko ci làmb yàlla na barkeel ci barke Seydina Muhammad ndaxte yaakaar naa nag moom boo yéene nit lu baax dangay jëkk a yéene sa bopp te bàyyi aale noo ko moom kon nag lu baax rek lañ koy yéene ak jàmm yàlla na ko yàlla jox ndam ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi ñooy mafia yi tala mooy jiite affaire yi. waaw moom diw bi diwaate montul ponkal akara buñ ko jàppee barki Sëriñ Bamba dina tagg di wàcc. di jël bu wallaay. dagg di wàcc ay mbir la. bu làmb ji jeexee. dafa tal teew ñu yegg ñu wax la loolu noonu mooy lan. mais xam ngeen waaw ñun lijjanti wuñ ko ñun ñun lijjanti wuñu góor yàlla barki Serigne Bamba. xam ñu lan lañ xam. jàpp rek lem naram laaj 9000 problème ak mais ñun ay car rek la ñuy dajal. parce que Serigne Bamba. mais caat yooyu noonu laa la waxal caat yi ñu dajal yëpp ñun ñoo gën a nekk caat. Ah. te buñ si jàpp dina xam ne du caat. kii ñoo ko mën laa wallaay ñu ko jàppee fuuf. xam nañ ko du mbër dawkatu peloton la. dawkatu peloton la du mbër. buñ ko jàppee barki Serigne Bamba dina xam ne du mbër. bilaa wallaay di tagg di wàcc nag. amul leneen lii si ñun lay jógee. waaw. lii fexe stade moo des. asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di gërëm Thiatou waalo rek xale bu am yar la bu mi teggin bu nangoo dégg ndigalal ndeyam ndigalal ñëpp jox ñëpp cër li muy bëgg daal moom daal lii la ko yàlla xiir yàlla na ci yàlla jox ndam rek ca kaw ca kanam yàlla na ci yàlla may ndam mu dund ba indil nu roi bi dund ba étaasal nu kër gi moom rek la ñuy ñaan ñëpp fekk si barke Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam barke Baye wërsëgu yaayam liggéeyal na ko baayam na am nañ ci yaakaar yàlla ba yaakaar yàlla tas yàlla na yàlla indi ndam li mu dund ba jël roi bi nu fekk ñun ñëpp ci kàttu yàlla man nag damaa wérul tey moo tax maa wérul tey moo tax jërëjëf jëf foofu laa yem wasalaam. lay ziar bu baax a baax di la bëggee di la jox sa waay bu baax a baax donc dañu nekk ci bés bu rëy rek di góorgóorlu ci xale yi Dalifort yi pour ñu dem ci kanam wax dëgg yàlla ñoom tamit neex nañoo ñoo jàppale neex na jàppale am nañu ay kos yu am bopp te dañ leen di déggal. xëy na nag euh, lamb moom dëggul fenn waaye ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla defal leen ndam bu kawe seen jot ci barke Mouhamed waaw waaw waaw. moom xëy na euh, waajal nañ ko comme niñ ko war a waajalee parce que xale xale yi moom ñoom amuñu bés. ñoom dañuy entraîner rek dañuy entraîner te dañuy dugg ci mbapat yi di di def kon. xëy na bés moom dañ koy jox cër loolu moo tax mais nekkul làmb joo xam ne doon nañu jaaxal ko du ñu jaaxal waaw dañu ñaan yàlla daal yàlla mi am ndam yàlla nañu ko defal ci barke Mouhamed waaw nañ respecté suñu adversaire mais du tey nag ñu yóbbu li nga xamante moom la ñu entraîné waaw ah jërëjëf. borom Touba ñu ngi leen ziar bu baax dina jox seen waay di kontaan lool ci bis bi di wax kii sunu doomu ndey la di nga ñaanal yàlla jokk ndam lu sedd guy bëre daan ñibbi. ñu bégeek salaamaaleykum wa rahmatullah Dalifort a ngoog waaw maa ngi lay fay gaan waaw ñu si kawam bu baax a baax a baax waa ñu si kawam waaw waaw pare nañ yàgg na arbitre bi sifflé rek a des waaw waaw lépp koy lu mu fi indi rek loola fiy fekk de waaw ñu ñëw Dalifort fekk waa Dalifort yëpp génn accompagner la si sa combat loolu looy yëg ci lool non dama kontaan ci loolu rek parce que waa Dalifor moom xam nga su ma amee bis ñoom ñëppay ñoom duñ nelaw quoi xam nga depuis bu jour affaire combat bi amee ba léegi ñoom nelawuñu xam nga yaa ma gën a xam dañ siy jàpp bu baax a baax a baax maa ngi nuyu monsieur le maire Baye jàpp na ci Awa Niang xam nga Grand Fall bàyyi ma kenn daal Dalifor bi yëpp jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a tey nga nekk si dynamique yu baax Thiat Limousine aussi nekk si ay dynamique yu baax loo koy yóbboon. kan la mbër mi wax naa su dalee sama kaw day damm su ñëwee tamit day gën a yomb ci moom na ñëw rek ma jàpp ko. lu tax nga naan ma mbër bi xanaa xamoo turam. caatu limousine la caatu limousine dama koy daan jël bu gaaw du taxaw sax. jël bu gaaw jël bu gaaw du taxaw incha allah dama koy daan jël bu gaaw. sa sa supporter dañ ko xeeb est ce que xeeboo ko. noo xeebu ma mbër man du ma xeeb mbër parce que bëri naa façon adversaire bu nekk quoi du ma xeeb mbër mukk mais dama xam qualité yi nekk ci man rek qualité boobu noonu nekkul moom quoi su yàlla defee mobilisation yi nag instant moom mobilisation bi ngoon moom ñun ñooy moom stade bi ñooy feesal dellu stade bi. yéen a ko moom. waaw ñooy moom stade bi moom Dalifort moom ñooy borom stade bi fële arène nationale ñun ñoo moom arène nationale quoi. kee borom limousine la est-ce du yëpp limousine mu fees. limousine fan nga gisee limousine bu nekk mbër limousine la mooy yu turu dof yooyu ñuy tuddee seen bopp nag limousine oto oto la tuddee boppam xaw ma ñun caatu Dalifort ñun ñun doomu dëkk bi lañu. saa dégg dëkk bi lañ quoi waaw yàlla nañu yàlla may ndam rek. incha allah ñu bokk ko gars yi quoi di nuyu waa. promoteur bi loo koy wax. waaw Ouzin moom lu mu def moom naaj moom Ouzin moom wax dëgg fa la lu mu def naaj moom kontaan nañ trop xam nga waaw jàppale nañ trop yàlla nañ yàlla may ndam daal ñu ngi nuyu waa Ndar Waalo Paal Njóobeen Ñaseen xam nga sant bàyyiwuñu kenn daal côté yooyu bàyyiwuñu kenn ndogal tribité xam nga bàyyiwuñu kenn waaw wasalaam. jaajëf. delloo nañ bëggee. waaw bis pare nañ si pare nañ démb tey soog a ñëw. billaahi ah. pare nañ si lépp. lum ñëw pare nañ si lépp ci moom lay dépendre rek. billaahi bu xeexee ñu duma ko bu ñu jàngal ko bëre. yomb yombul mais mais pare nañ moo tax dañoo pare moo tax. non kooku day xaar. kooku fu ñu ko jàppul si karaw day jóg. billaahi moom boppam rek. taxaw laa wax ñu fekko ko fa. fuñ ko jàpp fu si karaw dañ koy damm. kon na ñëw taxaw rek. na mel ne kuy seetaan rek na ñëw taxaw rek fuñ ko jàpp jël la. Ah. billaahi ñoo ko mën ñoo ko doole. nice. bëgg bëgg sant nii gaan oui ñu koy waaj comme ñu ko doon waajee rek. waaw di ñaan sunu mbër defal ko ndam liggéey na lu war si combat bi def na ko quoi day ñaan sunu borom defal ñu ndam quoi. Ah. waaw mais fas yéene ngeen samp ma de kii champion la. Ah. dañuy suul tànk yi laa wax. mais kii tamit champion la. waaw ñun kii lañ xam quoi moom moom lañ nekkal te nit ki ki nga dëggal rek kooku nga xam. Ah. ndaanaan la yàlla na ko sunu borom defal ndam. tey fas yéene ngeen doon caat. déggoo ma te loolu la ñuy fas doon continuer ko. original baa ngi nii. kii mooy waaw mooy cat bu original rek tey leneen waaw. grand yaa ngi rek kontaan nga de. waaw cat cat kese la ñuy wax. bilaay wallaay champion la. yàgg na bilaay waaw waaw bilaay yow. te am nañu day ñëw présenté wu rek. billaahi stade arène nationale pour ñun la pour ñun la ñun dañuy jàpp ñu dañuy jàpp dem stade. billaahi pour Dalifort la. mobilisation bi xoolal am na ñeneen ñu jógee jóge ba waalo. billaahi yooyu ay waalo waalo lañ jàpp daan rek bu soobee yàlla billaahi yow.